ca mu ngi noonu diggante Ameth Lac Rose doomu jàmm gën Ameth Lac Rose moo woon ginnaaw doomu jàmm gën lañ jàkkaar Ameth Lac doomu jàmm bal ko léegi waaye demul da koo mbiij mu bañ ma jàmm gën Ameth doomu jàmm gën mais nag sànq jëli takku suuf de ndax amul quatre appui mais loolu dina si ñëwaat après Ameth Lac Rose ba plaqué ba takk na man bu ñuy bëre sama xol baay seet. objectif bi am problème li ngeen xamul lan la mais tey lan la mais seen lamb tey lan la ba jàmm la bisimilah jàmm. <laughs> cat la rek cat. waaw bu rëyul seen cat bu rëyul seen mais nag naka naka waa kii la naka la lutti rek lutti rek yaa ngi bëre lu neex ndeysaan. dañuy dimbalante ñu ñëpp a far. Ahmed Lac Rose ngi roo looloo yóbbante. Touba Dakar bi la màggal bi. <laughs> waaw doomu jàmm gën mayu ko dara doomu jàmm gën Ahmed Lac Rose. doomu jàmm doomu jàmm mi ngi tànn su bañ a def beneen mais Ahmed fi mu jàpp baax na mi ngi taxaw di ko déglu di xool muy def muy combat bu neex combat yërmande Ahmed Lac Rose jugee ci defet doomu jàmm gën defet. ñu xool ñoom ñaar kan mooy relancé wu ñoom ñaar. ay ca nee na ñoom ñaar jugee si jugee si défaite ñu xool ñoom ñaar nee na kan mooy relancé. kon dana nekk combat bu métti ak bi na temps bi dafa mel laa jeex wala fa bëgg ñëwaat ci géew gi ñoom ñaar waaye premier sut bi ni mu gaawee woon bu ko amaatoon mu baax da neex. pitib dib lay doon. ndeysaan at bi waan ci biir géew bi sële waan na combat bi Ahmed Lac ak doomu Diamaguène. amel Lac Rose bi mi jugge fi defetam Mengu Mboro moko fi dan ta Mengu Mboro bi nga bàyyi koo Diamaguène tey doomu jamagan di prewat ak mom ñu xol do xam day delloo bu mu ci ak kii wala. da bëgg da doon yoru yoru be baaxul. yooru bee baaxul mbër du yoru da ngay gis ba japp xam soo songu ba ngay épercule. lolo sigil malay sen sigil malay sen seen yóbbante baa ngi noonu mbaa kaawul am pël mbaa kaaw na ko lu mu bëgg da ko wóyal na ko Zongale. bal ba li lan jël ba rëy na doole doxul jàmm ne doole doxul jàmm. waaw waaw. Ameth Lac Rose daan na jël bu rëy. ba ci kaw dóor ko jël bu rëy doole doxul jàmm. ma ko ay lii lan moom gàllaaj bi lan